dugg Allemagne ñu ne ma kaay jaar ci àll man leen yàlla tere génn fa ni ma ngi ilaa Danemark ñu bëgg maa mark la man leen raw ma leen di dugg Bolivia ñu jox ma Boli man leen di ab ceeb Sénégal la ëppee waaye moo fa génnee ca dem Gabon ñu bëgg maa jox carte gab man leen soxlawu ma ko de waaye boo fa jógee nag saxaar bu jubee gaar nag day korne damay dugg nag ilaa Touba euh, daal di ziar sama yaakaar tey ëllëg nga xam ni mooy eh, Serigne Mountakha Bachir nga xam ni bàyyam ba rek moo ni woon Sayyiduna Muhammad antal karimu annal xadimu dahran odimu fii kasana yi ñu ziar ko bu baax Mbàkke Bala ñaan ko mu yàgg fi lool te weer bu ñu fa jógee dugg waa woon ziar ki nga xam ne mooy eh, Serigne Babacar Sy Serigne Mbaye Sy Mansour eh, ñaanal ko bu baax a baax moom it mu yàgg fi te weer ak kullu xalif képp koo xam ne rek yaa ñuy suivre fii ci émission seetu bi waaye buñ buñ buñ jógee foofu Sénégal déglu leen Sénégal ma dalal tey ànd ak ndaanaan macha allah ndaanaan boo xam ni bu ngeen duggee dégg maam ci réseaux sociaux yi wala ngeen di dégg maam dugg ci Instagram yi fu ngeen fi mënti dugg macha allah yàlla nga fay def ma ngi fay def bës boo xam ni tubaarkàlla macha allah di ko toj ba àdduna sépp nangul ko loolu tey nag macha allah ma war a dajeeg moom euh, fii nga xam ni moom mooy ci télé Futurs média di doomu Tamba bi nga xam ni macha allah dama koo gis rek naw ko ca fullaam ca personnalité am ca gëm boppam waaye ca xam mooy kan waaye du ma sori sama jigéen boobu tey laa leen di jëw nag présenté koo koy kookoy coppet. ko asalaamaaleykum mbokku diwaanu àddina bi waaye asalaamaaleykum mbokku diwaanu Sénégal rawatina Tambacounda fi ma dëkk fi ma juddoo fi ma yoroo fi ma fekk baax ma leen di nuyu mba dem ba manankam nan nakam melaw mbaw be fola moko moko be sigi len yoro yoro ni tamba de be dunia fantani nani la nde alimatu coppen ka ma be ni raw be su ka faaw be ka duwaw ken sigi fele TFM la alors may nuyu di sant di ziar di bégee képp koo xamante ni rek yaa ngi toog jamono jii nii di ñu suivre fii ci TFM seetu bi seetu askan wi tey dara du yomb dara du yomb man mi nga dalal. xam nga man tey jii damaa xalaat ni sax ni man maa bëgg a affronté ma. barki ñoom yonent bi jongoma VIP nga dalal. foo waaw <laughs> dara du yomb tey maanaam téléspectateur yi. ñii di man doyen maa affronté kii tey. waaw mais booy dee ci àll na la gaynde rey. baadu. ah ci na jënax génn nga xam xool. waaye reyndu gaynde daa metti de. waaw mais garaawul. dee ci xare. waa ba say sa taati sa wéy wa du fay. nga ni dee ci xare dee ci xare ba sa sëtaati sët wooy wadu fay la ilaha illallah moo tax la joor joob ak Alburi Njaay ñëpp ba tey ñu ngi leen di tudd barki ñoom yonent ci kenn waay waay sama tey mu ne ci xare ma dem ci dara du doy waaw léegi da man sama santé lay xool sa santé ngay xool sama wér-gu-yaram maanaam bu ma la bëggee affronté affronté ma bu baax ba mu neex est-ce que na wóor na ba mu neex xam nga man damaa gaaw ci bor yi non garaawul. Ah. yooyu yëpp mën naa koo gérer. Ah. damay doxanteeg kit kit yow wala déggoo ma damay doxanteeg yooyu yëpp ay kit laaj yu ma yor boo bëriwee ma fomp la defar ba mbaax foo ne. yu ndaw yooyu. moo yow man kay xaw ma sax fu ma ne. xamoo fi nga ne ba léegi yaa ngi seetu bi biir TFM maa ngi TFM waaye déggal loolu dama ni tey Sénégal tey la tey tey laa ànd ak sama jigéen macha allah euh, ñu fas yéene àndandoo fii ci euh, Futurs euh, Médias fas yéene def seetu bi macha allah fa mu génn nooy ba tax na sama jigéen tey dama lay wax ni ñu ngi lay dalal jàmm bu baax ci kër gi macha allah li ngay def ci ci ci réseaux sociaux yi dafa rafet macha allah ku ko xool day xam ni kii euh, li muy def macha allah euh, euh, faru ko. dëgg la kon donc ñu ngi lay encouragé waat. di la ñaanal suñ borom gën laa yokk ba nga yëg ko waaye tey du yomb de. dara du yomb ndax maa maa fas yéene takk tey jabar publiquement. moo yow kon wéroo. waaw yaa. te dara du yomb. nga ni li nga wax rek ma nekk ci réseaux sociaux yi di ko tag ndeysaan mm-hmm, mm-hmm. mu jaaxal ñu bari nag. Mm-hmm. dañuy wax naan waa gis nga ak pois bi. comment se fait-il que mu mën yii di def yi ñaan way jur rek. ñaan way jur maa ngi sant bu baax sama yaay ay dara karaara bani xureesi ni bani xaasimu sëtu yonent bi kenn du moom bani bani xaasimu ni bani xureesi sëtu yonent bi kenn du moom ay dara karaara maa ngi koy ñaan bu baax a baax dama ko aliyun abi taalib ay dara karaara nga ni amuñ xale la ko yaayam ni woon karaara eh, naa la si junni yu bari indi ko léegi mooy yow mamee ngi yor chéquier bi bu paree rek ma jox la chéquier bee ngi ci garaaw kon daal andi feere ah, mm. lay doon déedéet garaawul de xam ne direct bi nii damay a joxe rek <laughs> gars yi di la yëg dëgg du neex waa Tamba di la xaar non waa Tamba mm-hmm. mm-hmm. dem ci kanam rek dëgg la euh, wax dëgg yàlla ñu nekk mm-hmm. nag dëkk boo xamante ne dëkku lakkat la macha allah ñu bëgg ma lool nag sa fooma ma fekk fa baax nag waaw tey bu demee ba àddina bi yëpp di dugal samay vidéo ñu koy partager un peu partout dans le monde ñu ne ku ne di ma woo yàlla waa Tamba ñoo si jàpp ba tax na nag aw ma seen fay ndeysaan dëgg la mu nekk ca RTS euh, bu Tamba Tamba baax a baax waa oh, RTS bi yàgg naa fa lool sax mm-hmm. macha allah mm-hmm. Mm-hmm. mu dem ba nekk sama kër nag wax dëgg yàlla lu ma neex laa fay def ñu bëgg ma lool fonk ma ba may xale laa ko commencé jaar ci rajo a baax ma leen di béggee bu baax kenn ñoom ma nekkee laa xam kon maa ngi yaa ngi ma tiim ni moo yow àdduna ak may seetaan ñëpp a ngi lay seetaan nu may def bu ma janoog yow nu may def ay yaa yeey waaw jongo ak yooyu jongoma VIP ngay waxal nga ni jongoma VIP léegi jox nu benn clip VIP foofa toj rek ñu tabaxaat kañ lay doon ay ca tukkër moom loo ci mën a wax maanaam ak coppet ja bu suuf seddee waa boobu du laal doom da koy teg ci aluminium rek muy gil léegi heure boobu nga koy joxe coppet ne ko si pëy mu saxaar xeeñ mu neex heure boobu nga koy joxe maanaam bu suuf seddee maanaam ngeen bàyyi ba 4 heures du matin jàpp 5 waaw xam nga heure boobu waxtaan du jëm kaw suuf day suufe maanaam day wàcc ndànk ci suuf day diig fekk moom euh, euh, euh, hmm. kii baa ngay gill ngay gill day gill du génn sa xaar day gilli rek xet wee lay dugg rek doo xam fu mu jóge lii pratique la wala da nga ko théorie ak pratique yëpp laa boole voilà maa ko def damaa sob rek di laaj rek tey laa eggal dama ni mooy sunu sunu jigéen a ngoogi ne eh, jóge ba eh, Tamba macha allah eh, di koo xam ni kaar tabarkalla macha allah ni leen di waxee rek man dama ko dama ko fan man man maay sa première fans ndeysaan man maay sa première fans ndax xam nga lu tax dëgg neexul waay kii Bouba Ndour Bouba élément ngi Bouba élément ngi barkim sëñ ñaam waaw ah déet àdduna amul solo xam nga nit moom bu yàlla dogalee macha allah nga nekk ci kër goo xam ni borom kër ga dañuy yaatal leen. Mm-hmm. kenn ku ne xam na ni yusuma jigéen duur. Mm-hmm. dani man lu ma am askan we waaye lu ma amit askan wi laa koy delloo. dëgg la waaw léegi nag kooku bu ne yaatal leen ku fi nekk tey xatal rek bokkoo ci yuusu. ah te moo woy sax fii ba Tambacounda am na. am na noppalukaay waaw te mu jógee Tamba. waaw fan yu noppaloo. dara du yomb waaye dara du yomb xa léegi nag. Euh, xam naa ne bu ñu fàtte tamit teranga Sénégal bi. waaw ñu def teranga yi wax dëgg mhm. yàlla. Mhm. dëkk bu nekk nag ñu dugal ci enveloppe. Ah. waaw waaw ku woote rek luy sa wërsëg rek dëkk boo tàmbu rek. Mhm. yàlla na Tambacounda am nag loo bi gën a rëy bi ah. sama dëkk fi ma jugee. ak Louga su ko waaw gis nga. Ah. ak Louga waaw Louga waaw Louga dama koo bëgg lool. léegi nag dañuy woote rek ci 88. 628 72 86 wala 88 628 65 65. wala 88 628 99 90. wala 88 628 04 05. 88 628 22 22. 22 22 waaw numéro yooyu yëpp bu ñu wootee. bu ñu duggee rek luy seen wërsëg nañ ko waaye yemul foofu. waaw FM rek dafa sañ. am na lu des. lii caa moo la mën a yóbbu Tamba léegi. ci kàttan moo yow indiwaat la léegi. waaw la wax loolu. oto bu ne muut rek ci ku woote. kilim bay bës bësi. foo ne. nga dugal ci son Youssou Ndour ngay bégee. rek du am coow du am. waaw waaw bu woote si numéro yi rek bu dee sa wërsëg rek TFM nga ko fi teg pour yow da ngay woote rek daañu ne ko ciix dugg. ma toog ca wet ba rek nga yóbbu ma ba Tamba dëgg du ne. bàyyi jooy bi da gaaw a jooy garaaw bàyyi jooy bi man xam naa lépp. boo jooy day mel ne amoo courage. mbokk teew na jël ko. allo. allo salaamaaleykum. ça va bien. ça va alhamdulilah soxna si noo tudd ak fay woote maa ngi tudd Marème di wootee golf. Marème golf. waaw. waaw Marème yaa ngi ñuy seetaan sa xol a ngi sedd. seetaan. yaa ngi bëggee. ça va sant yàlla bu baax. ah macha allah yàlla xeeb dool yi Marème loo bëggoon. ah bëggoon a participer ci Teranga Sénégal. ci Teranga Sénégal rek. Mhm, mhm. waaye léegi ban dëkk nga taamu. foo dëkk yow. man fu dëkk Dakar Ndiaye bii. waaye léegi ban dëkk nga taamu ci lii. dugg Ndakaaru rek. fan. Dakar. Dakar waaw. Euh, euh, euh, coppet ni ko ci pay. mu saxaar ubbil ma Dakar mu xoolal ko Dakar. waaw waaw. a ngoog. waaw waaw. boo nee ko Thiès dellu ma ba nii. Eh. rek Thiès. waaw ndax attan naa ko. wuy <laughs> ma soxna Marème. ubbil ñu xool lu moom ca Dakar soxna Marème waaw. waaw. yaa ngi may dégg yow di nga gagné parce que sama yaay Marème la tudd macha allah. Mm-hmm. macha allah. mbaa yëg nga ni. Mm. Ah. ci kattanu sunu borom. Mm. Ah. ci teraanga yi Sénégal. TFM mm. uh-huh. may na la juróomi magum jëmm maanaam fukki junni. waaw cinquante mille dina la neex. juróomi magum jëmm maanaam fukki junni. Mm-hmm. jërëjëf. wax musta de. bu ko defee bu mu coupé ñu jël numéro ci suuf bul sa numéro ci suuf. Mhm. daal di lay woore nga ñëw récupérer sa loo. Mhm. ci ndakaaru waaw waaw. bu ko na la neex. dugal ko ci enveloppe rek te mhm. waaw kay nag mu nekk premier gagnante bi tudd Mariama woote golf ah, moom mu taamu nag ndakaaru gii ci teranga Sénégal euh, ci kattanu yàlla TFM sagal ko fukki junne waaw Futurs Médias mooy seetu askan wi noonu rek la ñuy saa su ne rek ñu ngi xool luy bégal askan wi ñu leen koy delloo ba tax na ah, ay coup bi Tamba. lu ko la jaral ma ma jaral bari na loolu la Maalim Mbaye waxoon. waaye fii ba Tambacounda am na noppalukaay. waaw kooku de yusoo ko way moom. aywa foo ne. waaye fa ah, fu ma bëgg nga ne fa. léegi. Tamba. boo ko ubbee. coppite lay may. barki ñu biir it. coup bi Louga. yaa koy may. maa lay jox. foofa toj. foofa toj tasar. léegi nag mbir maa ngi noonu di leen jaajëfalaat bu baax di leen eh, waxaat rek ni. fexe leen di wootee ngir tenter seen mhm, ci euh, numéro yi nii seen i euh, loo yi nga xam ni moom la leen Télé Futurs Médias euh, di offrir mhm. ma ànd ak nag sama jigéen tey macha allah tey nag vraiment am naa contenté bu rëy rëy ndax j'aime bien di communiquer koo xam ni macha allah li nga koy jox dala koy delloo di ci profité rek di ziyaare waat bu baax Njaay mhm. sama naataango nga xam ne tey teewul sama doom baay bi tey dafa am benn maamam bu wàññiku foofa ca Sokone. ndeysaan ñu ko koy ziar bu baax ak képp koo xam ne rek bokk nga ak moom. Euh, euh, wala ngay soppeem kooku di jaay bu baax waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax baax waaye nag tey ñu bëgg ca bu baax Mari Njaago nag ma ngay waaj ca yoon ba xam naa ci kanam tuuti daanu ko dalal ñu daal di pelloo man moom ak sama jigéen bu baax bi waaye tey sama jigéen mhm. euh, damay bàyyi clip yi ngay dugal téléphone yi ngay jël macha allah boole daal rek maa teral rek di joxe ndax nag kaay teraanga lu tuuti te dañ Euh, euh, euh, nit boo ko terelee rek maanaam jël nga buum takk barki yonent bi te nag bu ma ñëwoon Tamba di nga ma teral ba mu neex kon nag boo ñëwee fii dama laa war a teral teral nga ma ay defal émission bi waaye may def lu ma saf tey wax du neex ah. coow du am dara du am dañuy dem seeti rek waa région ñu tegal ñu clip bu neex ñu sàjj def lu neex bu ñu paree ñu continuer rek ak Marie Ndiago joxe suñuy loo ah eh, eh. defal naa eh. man mënoo ma indi fii pare ci xóot daal ñëw si bunt bi. Eh. waaw ko. tey di xeex njàkk du jeex. waaw dana jeex nag. waaw da ngay yam lan la. waaw kii ku muy xeexal. waaw kii xeex ngi ñëw. Eh, <laughs> booy xeex tey ngaa xool ka ngay xeexal bu ah. baax. xoolee nag. yéen bi si njàkk baax bambara piir ngay xeexal. bambara ah Ah. i b'a lɔn ko bamanan na kɛlɛ tɛ ban i b'a lɔn ko bamanan na kɛlɛ tɛ ban ayi amadu b'a ye kɔ mane la i b'a lɔn ko bamanan na kɛlɛ tɛ ban eh. an bɛ taga a la f'a bɛ ban eh, eh, e k'i sigi yan dɔrɔn ne kuma tɛ sa est ce que hɔn ka ma ba hɔn ka ma nka mɛ nama ne fana k'i sɔn ma dɛ est ce que hɔn ka ma ba i da ka kiyɛw dɔw ye ba ye ko ba ye ko mɔgɔ kan mɔgɔ kan gisi k'i dafa bëgg yàq deru njaago yi. waaw moom rek moo mel lool si njaago yi. waaw waaw. te Sénégal fii nii. Mhm. jullit ak catholique ñoo fi ne. barke mhm. yàlla yàgg nañ fi. Mhm. kenn duñu ko yàqal. déedéet dialogue bi. wax ko si kaw jotee. ni leen di tëbalee yàq. nga lax bi noonu la leen di tëbalee nga lax. dëgg eh? ah lu tax. ah di ko def mu fees. <laughs> xam nga lii <laughs> ñu ma di mel ni ci ngelax yi. ndax tabaski bu jot. waaw yéen butitu mbaka ngeen. ay ay ay ay eh, bul yàq der. bi. te te yow xaar mi wax la. waaw. Youssou Ndour. waaw tabaski de may jullit xaar. waaw lu tax pàcc du may njàng mbaamu ko. waaw ay. <laughs> loolu kenn mënu koo régler. kenn mënu régler loolu. Bouba Ndour buubam moo Youssou Ndour ndax mm. Youssou bu mayee xale moom ne wax Youssou pak nde may ñoom Pierre da Silva mbaamu ko yow loolu mooy sa kàddu mm-hmm. waaw mm-hmm. dégg déglu moom mu bàyyi dama koy wax rek pour mu dégg loolu ko yàq mm-hmm. fii kër jullit ngay dugg fekk fa catholique bu fa dëkk waaw waaw ñuy tuddante ay doom waaw di tëddandoo ci nekk la rek la waaw am déet mu mel ni ku ma ko poon kii du ko dal ku ma xël poon eh xas na la de xas na la de gis nga soo mee jaay pànka yow damaa def ne gisoo ma nag kii dafa wax ah xoolal ki ngay dëkk xoolal ki ngay affronté ay waay xoolal ay waay mari kaay mari mari taxawal mari teeyal teeyal mari kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay man bambara pire ñëpp ba ma naan dendee. bambara pire. waaye waaye ko rek. allo looy arrière. ah taxaw yow kay demee yow kay ñëwal rek. arrière ko. ah mari jaru bi. kii moo wax mu ne julli ci kàtte léegi moo bokk mu ne eh, yow a naa di. ah kon xool na ma bu baax gis na ma mu may soogee gis xam naa gisuma woon bu baax mu may soogee gis.